spécial rentrée des classes ah ubbite école bi c'est une société Cipex, une société industrielle papeterie express du Sénégal une équipe dynamique te qualifiée à 100 pour jeunes sénégalais jeune série machine industrielle de la haute technologie di proposer la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée la SIPEX une boutique agréée librairie papeterie Mohamed Bourguiba LPM Sandaga LPM LPM Koloban, LPM Kaulak, LPM Tilène LPM Kurmasar. Hello Partenaire GBIS Mou, GBIS Kaulak, LPM Bount, centre commercial Al Maktoum la CIPEX et la LPM toujours au service du social les commerçants et grossistes pour tout renseignement contactez-nous au 77 633 21 24 ou le 77 571 07 02 Denis Joflente ak mairie municipalité ministère yi ak ñi nga xamné ñoy bonne volonté yi bëgg jàpp ci jàng pour xale yi ngeen ñëw ñu jox leen ay kaye ci ay ñëk yu yomb ngeen dimbali xale yi ndax éducation moy defar réew ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الآية صلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحبه ذوي الفضل الجسيم ورضي الله عن صاحب الختم محمد الرباني تاج العارفين وإمام المقربين مولانا أبي العباس الحسن التجاني الشريف وكل من له انتمى من الذرية والأصحاب أهل القرب والتبان وبعد السلام والرحمة والبركة علينا وعليكم أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى نيو نيو mbokk jullit yi rot si ci bërëb bu tedd bu sell bi nga xam ni tey mooy inauguration bi muy néegu yàlla di jiital ci nuyoo yi ni ko baaxoo di defee waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci këru diine yépp ñaanal yàlla kilifa yi yàlla dogal ñi nekk ci bopp yooyu la njaboot gudd fan bu ànd ak wér ak wérle ni ñu koy faral di ñaane njabot gu wam motu ta tekki bañu jëm fu leen neexul ak fu neexul yàlla ñaanal khalifa bi muy suñu sëriñ di sëriñ Babacar Mouhamadinil Mansour bu maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiallahu anhuma di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér ak wérle ku am sa kilifa war nga koo ñaanal yàlla gudd fan ndax lu mu fi gën a yàgg la mag ñi wax ci kilifa kaaf ak laam ak faa ñi ni kaaf geeg laam gi mooy kilay faa gi di fegal kon kilay fegal war nga di ñaan sa boroom mu yàgg fi lool ndax tata lay doon ci yow kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi muy dese wér kàttan sago di dégg di gis di mënal boppam la mu naal yépp yal na yàlla may ko ci lu kawe njortam rawatina jumaa ji nga xam ni tiitër la ci umma islaamiya bi yépp waxuma sax ci umma islaamiya bi waaye tiitër la ci àdduna bi yépp sak la ci àdduna bi yépp di ko ci sant bu baax di sant it ñi nga xamante ni ñoom la jël liggéey bi teg ci loxoom fa tabaarakallaahu te ñoom Pape Habib ñi ci lañu bokk macha allah taxawaay bi rafet lool ba ñu jël caabi ji jébbal ko ko image yi ñëpp gis nañ ko ci fan yi ci fani burdu bi yal na yàlla wutuñu ci fayal ñu ñooña noni lañ koy ñaanale rakam ju bax ju tedd yi amiru shuara wa taju udaba taju udaba sàppul lisan moo tax ma ne udaba muy mawlana idil lik mawlana cheikh al xaaji malik si dabbaax dal nako fi yàlla yagal ti werol ko moom ak rakkam yu tedd yu sell yi ka nga xam ni moom la moo nekk ca daara ja nangu lu méttee métti nangu lu diis a diis ñii ñaan rek yàlla di ko ko téeñal muy sëriñ Babacar Abdoul Aziz tabaarakallaahu nekk ca daara ja ak rakkam ju baax ja di médiateur muy Maolana Cheikh Seydil Hadji Mouhamadul Mansour si fa tabaarakallaahu dabbaax ci mbaax ga ak tedd ga ak seen rakk muy cheikh sidi maam ousmaan mohamadul habib fa tabarak ak seen doom ak seeni ay doom yi ma limoon sànq di sëriñ mohamadul mansour si jamil ak seeni rakk ñoom ñépp fa tabarakallahu noonu yi lañ koy ñaanale bépp kilifa diine boo xam ni yaa ngi ci réew ma comme ni ñu ko waxee woon sànq di ko ñaanal boroom réew ma di ko ñaanal waa jàngu bi di ko ñaanal ñépp di leen ko ñaanal yéen ñu baax ñi tey ñëw wuy si woote yàlla bi ñëwee fi nag ci ndigalu suñu kilifa muy xalif général des Tidianes Serigne Babacar Mouhamadou Mansour ma ànd ak sama sëriñ sama doomu sëriñ fa tabarakallahu sëriñ Cheikh Ahmed Tijani bu boroom daara yi ci tedd ngam yaroom mën a joxe xorma fa tabaarakallaahu nii rek lañ ko mës a xamee ñoom ñépp nag ci dal gi ak teey bi yal na yàlla laf cet àndi itam ak sama baay bii nekk sama wet te mu def fi exploit bu rëy ndax sas na leen de yëfi mag la def ndax ca hôtel ba lañ njëkk a woote waxtaan ak ñaari kuréel yi ñaan leen ñi saafonte mu ñëw gën ko valider fii la ko valider nag ci kanamu mbooloo mi kon ku delloo ci gannaaw ci yow la loolu la leen wax neena ku delloo ci gannaaw ci yow la na njaboot yépp wommatu si jërëjëf yàlla na yàlla wuti fayal ñu la ci taxawaayu yu rafet ànd itam ak suñu sëriñ bi suñu doomu sëriñ muy maam Cheikh Omar Fouti yu murdi tuwaati bu Sidi Jamil yal na yàlla wutu ñu ci fayal ñu leen ci taxawaay yu rafet yi ngeen di def ci diine ji tarixa bi ak seen kër maam à travers bi ànd itam ak suñu doomu baay muy alxaaji Idrissa Gaye bu Baye Khalifa gay fa tabaarakallah moom it di boroom xam-xam taxawaayam rafet lool ci àdduna bi yépp yemul Sénégal rek ànd ak suñu doom ji fa tabaarakallahu muy Serigne Cheikh Ahmad Tijani sam bu Serigne Cheikh Samb bu Mbour kenn du ko présenté ti yal yàlla yàggal taxawaay ñi ñëw nag ci ndigalu kilifa gi waaw ak alxaaji As Diop bu alxaaji Daam Diop Mouhamadunil Mansour moom bàyyi léppam fa tabaarakallahu maa ngi bind turam nii de waaye xel day fattu <clears throat> yal na yàlla fay ko moom it bàyyi yitteem yépp ñëw fekk suñu fii Mouhamadul Kabir Gajaga fa tabaarakallahu ñu naan ko welcome from London ay lépp ñëw fi fa tabarakallah yal na yàlla wutuy ci fayal ñuko bi jahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam may Allah reward you immensely fek ci fi sangu yi teddi suñu dom baye ni muy alxaaji Birane fa tabarakallah ak wasilatu rahim ak fa tabaarakallaahu présidente bi muy Mame Diarra Kébé di nuyu soxna Kumba bu baax di ko jox wàccuwaayam moom it tabaarakallah di nuyu suñu mbokk mu baax suñu cousine muy Ndeye Marie Ndiaye moom it waaye di nuyu suñu doom moom it ñu fekk ko fi muy Mouhamadul Moustapha Samb di doom ci góor gi tabaarakallaahu di nuyu mbokk taalibe yi ñu fi fekk yépp waaye yi ñi ngi koy ci loxo Cheikh Ahmad tijani Ndaw mook soxnaam soxna Amina Mbay ak soxna Roqi ak njaboot gi yépp ak ñi leen di jàppale di leen ñi ngi ak suñu doom Sëriñ Saam yal na nga di bégal jami yi ànd ak wér ak wérle yaag ñi ngay àndal ñépp mu doon tànku jàmm <clears throat> ndax dañoo ñëwoon ci ubbite gii nga xamante ni moom lañuy ñuy ubbi néegu yàlla te sëriñ bi wax na ko léegi awwalu masjid jàkk ji ñi yonent bi njëkk a ubbi mooy masjidu Quba te moom yonent bi sallallahu alayhi wa bokkoon na ci ñiy doon yëkkati mool yi di teg di jàppale saxaaba yi ba mu ko defee tuuti la bàyyi saxaaba yi daal di àggali liggéey ba muy marqué fa tabaarakallaahu wane lan mooy importance wu jàkka ndax jàkka mel na ni suñu assemblée nationale la ndax dinañ fay daje ku gëjoon gis sa morom da nga ko gis danañ fay daje di dimbalante danañ fay daje di jàmm yàlla loolu bokk na ci dundal jàkk fa tabarakallahu waaye di ko entretenir bokk na ci dundal jàkka kon nañ ci bàyyi xel di fa jàngale alquran di fa yee nit ñi di fa gindi nit ñi sëriñ bi yabal ñu fi ci njabootam Pape Habib junj ko njaboot gu teqalikoo rekk dana jaaxal way jur wa ku dem ba am njaboot it li may wax di nga ko xam may profité di nuyu sama doomu baay di alxaaji alsan ñang bu bay ahmad ñang ndax mooy sama njaati ji fii ci Italie mooma ma njëkk a indi Brescia ñu ñëw di seet si suñu mbokk di suñu xarit di suñu soppe Mouhamadul Moustapha Thiaw taalibi maam borom Touba la Baye Fallou Mbacké radiallahu nekk ku baax wax naa fële keroog mbokk yi ni leen su ma daan ñëw Italie balaa benn taalibi tijaan di ñëw di ma seet si moom mooy njëkka a taal otoom ñëw seet si ma ba suñu yoon yàlla tey kon yàlla yàlla wutuñu ci fay kon may wax ni njaboot gu teqalikoo dana jaaxal kilifa ga te dootul nelaw na moo tax dégg ngeen sànq Pape Habib nettali leen ko ni ba muy jóge ci xalifa bi dénk na ko mu ñëw wax njaboot gi pour ñi nekk benn mu ni ko wax ko ca kaw ñépp dégg ko loolu nag junj la te junj doy na boroomi xel àdduna bi nag dafay mel ni léeg dafay dégradé ci jikko yi maa ngi ñaanaat di jéggalu di nuyu euh, monsieur le bu diaspora bi tabaarakallaahu fi yëkkati kàddu yu yu am solo wax ci loo xamante ni day boole jaamu yàlla que dégg naa mu ni l'Italie pluriel pluriel loolu nag bu jàmm amul du mën a nekk di sant bu baax suñu consul général ni ma ko waxee woon sànq Diallo yàlla fay la yiw yàggal sa taxawaay te barkeel sa liggéey yaag ñi la fi yebal am ci yow yaakaar muy soxna yassine Fall nek ca intégration yakarna affaires affaire étrangère ak kilifam muy alxaaji Ousmane Sonko ak kilifam muy son excellence monsieur le président Bachir jomay Diakhar Faye yal na yàlla barkeel seen liggéey yal na yàlla jubale leen ak sen wa rew jàmm rek di dox ci sen digeunte ak ndax mag ñi bu ñuy ñaan dañuy ñaan yàlla nañu yàlla may njiit yu jub te bëri yërmaane ndax njiit la ko war mooy am cofeel gu rëy ci njaboot gu muy jiite foog ñu bàyyi ci xel njaboot nag léeg-léeg dina ci am ñu jaar yoon dina ci am ñoo xam ni sambalu kër la ñuy doon waaye nag lépp ci say responsabilité la kon nag yàlla na yàlla na leen yàlla dimbali ci tâche bu rëy bi nga xamante ni gàll na ko seen loos yàlla dafay wax ci alquran zahara alfasaadu fi lbarri walbahr bi ma kasabat ay dinaas kon place bi ñu nekk bu tilimee du place bee tilimal boppam bu fekkente ni ku fi toog ñandu ci sa mouchoir sànni xolli sa banaana sànni bu yàggee bu palaas bi tilimee ña ko occupé ñoo ko tilimal kon corruption ak yàqu-yàqu ak yu ko niru ci loxo ñin ñi la jóge ñoo ko sabab kon ma min fasadin fi l wa huwa min sun'i l bashar doomu aadama moo fi indi loolu désordre bu amee moo tax yàlla ni wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wala tabgi lfasaada fi l ard waaye kenn gënul sànku ki nga xamante ni moo topp passion ku topp sa passion sànku nga parce que da nga mooy njub nga yàlla bëgg ci yow baaxul moo tax démb wax naa ko ni maam Cheikh Seydi Hajj Malick yitteem yépp radiallahu anhu moo doon xeex ignorance kon xam-xam bu jariñ xam-xam bu jariñ nag dafay yóbbu jaam bi di ko wammat société bu mu nekk mu jàkk pénc bu mu ne dina jàkk ndax dafay nekk koo xam ni day mën a dékku wax naa leen ko keroog wala démb xalifa bi dina koy faral di wax maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiallahu anhu fa cha'nu xam lu agal wara moo tax mag ñi di ko ñaan yassir lana xamla azal axlaaqi ci lu àndul ak ngistal maanaam góor yàlla piir piir mooy ki nga ni wala kilifa piir piir mooy ki nga xam ni njaboot ga dañ koy tooñ mu nangu tooñ gi parce que xam na ni xajul ci njaboot gi njaboot gee xaj ci ñoom moo tax képp kuy kilifa rek am nga responsabilité bu rëy rëy ndax yow yaa war a nekk jaamu ña nga yilif du ñooñu ñooy jaam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca xajjatul wida dégg ngeen mu wax ni usil xalifata min baadi bi taqwallah maa ngi dénk ki may wut la ma koy njëkk dénk mooy ragal yàlla ndax ragal yàlla mooy capitalu bépp mbir parce que bu ragal yàlla amul rekk lu bari yàqu dénk ko it mbooloom jullit mi mag ñi wala ndaw ñi nañuy respecté mag ñi ci gàttal mag ñi nañuy respect nañuy bàyyi xel ña ca seen ron ñoom ñépp nañuy ànd wekk boroom xam-xam bu ko defee bu yàlla dogalee nga nekk kilifa ñi jox la ay responsabilité te mënoo assumer lépp wutal jëwriñ boo fa teg mu lay surveiller njaboot ji te léeg-léeg nga wàcc di contrôler ndax la nga leen la nga ko la la ko sant ma nga koy def ci njaboot gi ndax bëri na ku ñuy sant dara mu ñëw changer yëf yi di noggatu njaboot gi dañu naan kilifa gën su ko defee nag xam-xam boobu ngay am moo lay wommat fa tabaarakallaahu ci jëf yu baax ngay xelu di def sacrifice mooy di jéggale di jéllale xuzil afwa wamur bil urfi wa arid an il jaahilin aaye ba ba mu ñëwee seydina jibril alayhi salaam indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni ko lan la aaye bi di firi mu ni ko may ma ma dellu ci sa boroom laajaat ba mu demee dellu si dafa ni ko sa suñu boroom nee na ku la tooñ na nga ko jéggal ku la xañ na nga ko jox kula dok dog na nga ko jok lolou moy jikko càng kon ay mbokk julli bu ñu waru ñoo bàyyi seytaane dugg ci seen bir di leen jax-jaxal ba yàq lu bari ndax sheytaane non la انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء كون كيب كوي جوليت kuy jullit خيل سي لول حديث بلان لوخ صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تحاسدوا ولا تناجشو ولا تباغضوا ولا تدابروا بحديث بجيخ وكونوا عباد الله إخوانا تعبي خط su ko defee loolu comportement la jullit ak moroomam du ñu boddante jullit ak moroomam waruñoo bañante ndax al muslimu axul muslim kon waru ko tooñ waru ko gàcceel waru ko doyadal ba yonent bi waxee ba tollu foofu dafa ne at taqwa haahuna mu mu mu dan junju jëmale ci dënnam ni ragal yàlla dëggi dëggi ragal yàlla fii la nekk kon ki ragal yàlla kenn xamu ko ku du ragal yàlla du man mii sol sama dara ju rëy wala teg sama écharpe yor sama kurus ñi naan setu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick eh, ragal yàlla newul foofu de at taqwa na mi ngi ci biir yàlla rek xam ku ko ragal ku ko ragal parce que dinga gis ku nekk ci jàkk yi di julli guddeeg bëccëg di tas njabootu jàmbu dàq fee woor ku ko lebal soo ko ko laajee mu ni laatu la moo tax yonent bi sallallahu alayhi ba mu laajee kan moo fayit kan moo perte ñii naan ku ku amoon société mu daanoo ku nangam ak nangam mu ni déedéet mooy koo xam ni yaa ngi nekkoon ci àdduna di julli di woor di def li yàlla santaane waaye fu mbokk yàqoo yow sa loxo génnu ci di rambaaj di tas ku la dénk nga nax ko ku la wóolu ba jox la nga lekk ko di lekk alalu jirim yi di ko dajale di tooñ di tooñ di tooñ ba àgg ëllëg yowmal qiyaama su boobaat dara nga fa dul fekk parce que sa kont la ci amoon ci lu yiw képp ko mosoon tooñ dañuy jël ca la nga am ci lu baax jox ko waaye duñ ca yam de dañuy jël bon bonam jox la ko yow zamaani qat'i rahimi mooy jamono joo xamante ni nee na ñi ngi dog mbokk gi tasil man qataak la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam wal jawri wa tazaalumi ña ngay jeng di jëm ci lu neexul yàlla ak tooñante والخوض في المحارم ak nekk di xuus ci loo xamante ni wóor la neexul yàlla waaye yaa ngi koy def siyama wal fisqi wa tashaatumi ak kàccoor ak di tooñante di saagante di wax lu bon wa bidain wa xiyali gis nga pexe jëmalewul nit fenn kuy roy na nga roy ci lu baax bidaa xasana la ñuy wax waaye lépp loo xamante ni baaxoon na nit ñi wëlbati nañu ko li mam moo da waxoon laqiina zamanan laa na safwa waaw seetatuñu lu sell seetatuñu leneen fa tabaraka jërëjëf saam wa zuuri wa taxaafuli عن كل ما يرضي العلي والنشر كل غاشم خمغني دي دورال نيت دور دو خمغن دور اه دي واخال نيت لومو امول لومو واخول اي واي تبري نفي دي غني والزوري والتغافلي واو جامبي ورول ساغان اك دي ديمبلي di dimbali kuy tooñ yaa ko wax de sax ak di dimbali kuy tooñ maa wax de unsur axaaka zaliman aw mazluman dañoo wax ni da dimbali sa mbokk buy tooñ ak buñ ko tooñee ñu ni ah buy tooñ nga dimbali ko ñu ni waaw naka ngay dimbalee kiy tooñ mu ni nga fexe ba dootul tooñ moo tax Baye mën radiyallahu anhu di wax ni yéem na ko ki nga xamante ni mi ngi sàkkoo Baye mën radiyallahu anhu bu mag maamu Serigne Habib maamu Serigne Cheikh Ahmad Tijani maamu Cheikh Cheikh Omar Foutiou di bàyyu xalifa bi yéem na ko nee na ki nga xamante ni mi ngi sàkku jëm ci boroomam te kuy jëm ci yàlla am na noo war a mel ndéem Serigne Babacar radiyallahu anhu moo doon joxe conseil ni kuy jëm ci maam Cheikh Seydil Hadji Malick lépp loo xamante ni jikko ju suufee la waroo ko yor dafa am comportement ndax nitu yàlla la te kuy jëm ci nitu yàlla bu sell am na noo war a mel lépp lu sa borom di bañ danga koy dindi bépp jikko bu ñaaw bépp bassesse da nga koy bàyyi nee na ci ngay mën a ànd àgg ci maam Cheikh Seydil Hadji Malick mu radiyallahu anhum ajmain muy door a def ci yow li muy def moo tax Baye Mansour nee na yéem na ko ki nga xam ni nee na dama bëgg a jege sama boroom waaye xol ba ma ngi ko feesal dell ak ay caaxaanu àdduna su yàggee mu ñuulal xol bi mu ni kon yow jaam bi yow mi bëgg a àgg ci yàlla sa yitte bu mu nekk ci topp sa passion ndax boo ko defee rekk jege googu ngay bëgg sori la lay jural waaye dootul nekk jege muni kon yow bu fekkee sa xol dafa nekk nga feesal ko dell ci bànneex naan dangaa bëgg jege yàlla man sama bosman, man déedéet duma ma ci def caaxaan yooyu ngir dama bëgg a sama borom ak am cofeelam mu ni kon na nga xiqi yow doomu adam bi yow sama mbokk muni ni xiqil xiqil ci ngëlëmte jamono ndax nit kat gis nga al aaya ba alhaakumu takasur di nga gis koo xam ni day wuti alal ba fàttee yar doomam wuti alal ba fàttee jaamu yàlla di ko dajale di ko dajale ba ba ba balakal mawti ñëw fëgg buntu bi ni ko diw yow kat sa boroom soxla na la kooku su boobaa muy def moo tax mu ni na nga xiqi balaa dara di jot bu la ngëlam te àdduna bi nax de waaye nekkal rek di jaamu yàlla di bàyyi xel yàlla su ko defee la nga bëgg muy jage gi dana la yomb muni ni dëddul aduna àdduna bu suufe bi muni bayiko muni aduna nak ni lu mu neex neex bu mu tax nga fàtte yàlla de lu mu naqadi naqadi bu mu tax nga fàtte yàlla dama koy firi ijmaliyan rek muni kon yow nang ma jox jox sa nopi xol nga xerewlu ma jox la laye bir bo xamanteni bu fekkente ni da nga ni da nga bëgg jege sa borom laay biir boobu bu duggee ci sa xol rek fawu nga jege sa borom incha allah ndax mom dañoo waxoon ni defar nit ci moom ni mi ngi yombe ni jël suuf sotti tibb suuf rek sax nii mu ni bu fekkente ni nag da nga bëgg jokk sa borom sa borom نينا مانغلي دينك نغوري جن جمينديف موي سانغو سانغي دي خير خلق الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق فالعرب ثم خيرهم قريشهم وفيهم خير خيرهم فالعرب خير نافهم ثم خيرهم قريشهم وهو فيهم خير خيرهم فالعرب خير ناس ثم خير قريش وهو فيهم خير خيرهم فالعرب خير ناس ثم دفلني لخو قريشهم وهو فيهم خير خيرهم man Mansour di wax ba tey yow mi bëgg a jege sa borom kon lii daf lay wax naka la jullit war mel te yaakaar naa ni nasaaix yi ku koy jàngat ay xuloo dootul nekk sa sa yitte ay dogante dootul nekk sa yitte mu ni nanga sax di naan ci ndoxu ragal yàlla ndoxu dogu <clears throat> ndoxu muñ ak ndoxu dëddu àdduna walis jaam yi soo ca saxee rek yàlla mën na la defal sutura nga bokk ci ay soppeem mu ni maa ngi leen di dénk lenn nag te xew ci jamono mooy bëgg jiit mu ni yow yow yow waxambaane bi moytul bëgg njiit de lu ñu wax nga ni damay jiitu nee na moytu ko ndax gis nga mu ni toroxlul ci sa kanamu borom ndax boo ko deful rek sa rëy mën na laa pousser ba la ngay sàkku doo ko jot yàlla nañ ci yàlla musal mu ni kon bàyyi leen dàkk sante dégg nga de bàyyi leen xuloo ak i xeex bàyyi leen delloonte ay kàddu yoo xamante ni rafetul ndax ba muy ca testament ba sax def na ko ci wa man asaa di ko wax Baye Abdul Aziz Dabakh radiyallahu anhu fa saamixu wa sil abadan min qaatiin haatikin bil qadfi yarmika ku yëkkati lu ñaaw jëme ci yow Dabakh bul gestu bu dee kàddu gu ñaaw bu ko ko delloo bu dee lu bon bu ko ko delloo mu ni fekk yamale woo ki lay tagg ak ki lay ŋàññ mu ni àggagoo ci yàlla kon nee na nga nekk koo xam ni da ngay nekk ku disponible ku accessible roye ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndem bëgg nga àgg mu ni bul nekk mukk koo xamante ni dangay tiitaru di puukarewu ci kaw nit ñi wala tuzakki bi daawa nafsi tamit ci beneen kii bi wax na ko yaakaar ni yaa gën nit ñi ni fahdar su ko defee mu ni nit ki du topp passion te ndogalu yàlla bu ñëwee bu neexee nangul bu naqaree nangul waradini bil qada rabbi mu ala balaika ya mu ni yow sama mbokk axi baxsa awratil ibaadi fa jaaniban na moytu di gëstu awray julliti di leen luñtu di seet seeni ayib nee na jaam warul tooñ moroomu jaam ndax yàlla njëkk a tere tooñ ci xadisul qudsi mu ni kon bu leen di tooñante man yàlla maa njëkk a araamal tooñ ci sama bopp ba pare kon bu leen di tooñante te waroo nekk di luñtu kooku bay génn ayibam ci biti kon mbooloo mu nekk war nañ di suturaalante sutura lu baax la yal nañ ko yàlla sàng mbalaanam moomu la muni ni gis nga koo xamante ay ayibam doy na ko wëlis ayibu jaam yi ngay bale buntu këru jàmbur na sa buntu kër set ni koo xam dem na ba xool càmbar boppam ni man daal balaa may ayibu sama ayib neno na su niko danañ ko faral bàkkaaram yu mag ya bàkkaar yu mag yi wax de ndax saxaa ir fi يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلما moo tax kon mu ni li xalif bi jël الكبائر ذي الغفران كلامي أولا مولاي وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من غلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بكل يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران ما مولاي يعطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صلي وسلم التي عظمت إن الكبائر في الغفران كلمني مولاي صلي وسلم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 المهدي من زلات عظمى إن الكبائر في déglu leen waaye kon mu ni ah papa papa yaa ngi feesal poos bi jërëjëf jërëjëf jazakumullah jërëjëf jërëgën jëf kon mu ni li ma doon wax sànq ni moom la khalif bi sëñ Babacar tan comme thème muy makaarimal axlaaq gis nga Baye Mansour wax na ko ci فتبارك الله آه، ويمي أبيات ينغا خمني فس دلك يلا التوحيد مكارم أخلاق الكريم فراغبا تدغي جيكوي موني نغا سامون تيك موم رويكو نك كيغا خامتيني موي گندي منديف صلى الله عليه وسلم نغا دوخ دوخام manam la nga roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax sank maa koy wax fële ni waman yaddaci hubbar rasuli walam yakun bi sunnatihi mustamsikan fa huwa kadhib ma beug yonent bi ma beug yonent bi te ken gisul ngay doxal ci sunnam si dara dañu wax ni wax du dàqu la kon jam warna naa moytu loolu kon muni makarima akhlaqil karim karimi teg ci li ma leen doon wax sànq rek mooy aaya bi mu ni xuzil afwa waarid wakzimil gayza muhsinan nit dafa war a am maîtrise rawatina boo jiitee kuréel mbaa njaboot mas naa gis fii ci télévision bi ca tugal muy France gii leen jege benn ci salon de l'agriculture son excellence monsieur le président Sarkozy ñëw mu am de way bu ko teg dégtal kàddu gu ñagas mu dello ko waye gis nga dañoo dal ci kaw ni ko na dem def excuse publique mu nangu ko mon président tawaje ko togn mu dem def excuse publique motax gor gi ku am sa mer maîtriser ko rawatina ngay kilifa wala ku ñuy yaakaare dara ku la tooñ nanga ko jéggal mu ni dëkke di rafetal dëkke di jéggale yooyu yépp nee na mi ngi bokk ci jikko yi gën a kawe kon mu ni yow jàmm bi taxool ak loolu nga dëkke di rafetal mu ni na nga sàmmonteeg sa àqi dëkkandoo donte bokku leen diine gis nga mag ñi ni ñuy bàyyee xel te da ngay dëkk fii koo bokkalul diine naan sama yoon nekku ci mu ni déedéet wa raaci xuquqal jaari law kaana kaafiran wasiyata xayril aalamina li saxbihi ndax lii yonent bee ko dénkaane moom sallallahu alayhi wa sallam kon lu yonent bi dénkaane rek war nañ ko def wa fi silatil arxaami ridwaanu rabbihi nee na ngërëmal yàlla ma nga ca di dox mbokk di ko jokk di nga am ngërëmal yàlla di nga gudd fan di nga am wërsëg balaa ngay dee ku ko dog nag yàlla nee na man dog naa dog naa la mu ni xadiisu taxaabu lit taalu fi saxiixan waaw ndax lii yépp ahadis la fa tabaarakallaahu yàlla ñey soppante ngir yàlla ëllëg yàlla dana leen ron ci këram yàlla nañ ci yàlla boole te nee na nag wa kullum attention wa kullum ruin yujza ala qadri kasbihi deretu nopp du mooy mag gi borom deretu nopp du mooy mag gi borom de moo tax lu waay kas bu rek ndab la ca nekk rek lay seet motax nenañu bu fekke da nga nek da nga am ndap mu am parfum kële am ndap lo xamni sobe ci nek mu jël sobe ga sànni la rik way bul wuti muk sobe di ko ko sànni jëlal li nga am ndax faqidu shay ila yawti jëlal li nga am nga soti ko ko bu ko defé jàmm dafay dal di am muni wama ahlakal madin illa ta illa tafarruq fa xarraqahum sarfu zamani bi shubbihi la alagoon ña jiitu woon moo tax démb ma doon wax saam aaya ba wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahumul yinaat ñooñu lañuy am mooy seen mbugalu borom yàlla nañ ci yàlla musal mu ni kon ña njëkk ña jiitu woon la gaañoon mooy di xuloog dàkkasante teqali ko tas mbokk bi loolu mooy yàq seen temps yàq seen àdduna kon nañu moy ci xëñtu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy ci buum gi ndax huwal mustafal muxtaaru yàlla moo ni woon ngeen topp ko wa in tutiuhu tahtadu ku ko topp rek di nga gis yoon wi doo dootoo may yoon wi dootoo réer ndax moom mooy moo gën ci peuple am mooy ashraful xalq sallallahu alayhi wa sallam mu ni gis nga lii nag wa fi misli za ahlu safai tanafasu mu ni gis nga qualité yi ma leen wax ci ay jikko dégg nga nee na way sell ya ya ngeen doon dégg ak di roy ca ñoom nee lii moo doon seen leitmotiv moo doon seen seen quotidien lii lañ doon dund waaye nekkuñu fi woon di xiiroog ŋaayoog dóoranteeg xasanteeg nangam ak nangam déedéet dimbalante lañ doon def ci seen biir fa tabarakallahu kon jaam bi mu dolli ci ni wa min chiyamil axyaar yi nee na deful mafasidin bokk na ci jikko yi gën a kawe te gërëmu fa yàlla bépp ñaawteef bu nara tabbi ci biir njaboot gi neena pousse puus leen ko jañ leen ko mu dem bu leen ko fi bu leen bu leen ko bu leen ko bàyyi mu dugg si kon kon mbokk yi nañu bàyyi xel ci dénkaane yi nga xamante ni fa tabaarakallaahu Baye Mansour dénk nañ ko ndax neena na ëllëg a tax wa xaasibi nafsa fi dunia muhaasabatan qabla alqiyamati tarbax duna xusraani danga nga sa bopp fii jaam bi day régler boppam fii balaa ëllëg di ñëw góor góor lu ci say julli juróom ndax ni ma koy defee noonu la ndax julli gi mbaa yàquma ko ba ndox laa war a jàppe weeru koor ñëw na ko yàlla bëggee nga defe ko weeru koor nag du xiifal biir rek de déedéet du xiifal biir rek de bul wax lu bon bu ko dox bu ko jëfe nee na yii moom boo reglee sa bopp ëllëg ci gàttal nee na ah yàlla mën na laa dugal ëllëg ci yërmandeem bi te di nga am ngërëmal yàlla mën nañu dinañu dugal ci yërmandeem dugal ñu ci ngërmandeem nga fa tabaarakallaahu moom tabaaraka wa taala ndax lu tax mu ni huwal karimu alladi ma radda saailahu yàlla baax wallahi an fadlihi mu ni fasaluhu kulla ahyaan nee na yàlla mooy buur bu sell bu tedd bu kawee bi nga xamante ni du delloo mukk ku ko laaj du ko delloo gannaaw du ko gàntu ku ko tàllal loxo déedéet da lay jox rek parce que moom loolu la xam ci ngëneelam la lay sédd ba nga doyal ndax ku tedd la aji tedd ku ñëw ci moom mu teral la tax nag ñiy war a jikkowoo jikko yàlla yi wax naa leen ko démb la bi xuluqi rahmaan ku jikkowoo jikko yàlla lu bëri daa ko jombal sa bopp moo tax mu dem ñaan suñu boroom mu ni ko yàlla ñi ngi lay ñaan nag ñi ngi lay ñaan nga may ñu ngërëm fii ak fële ba pare may ñu mujj gu rafet waaw bu ñu demee ba bu ñu demee ba ñuy ba ñuy sàng daal ma ba nga xam ni malaaka bi jël na suñu ruu ba nga xam ni sàng sàng rek moo ci des nee na yàlla na fekk nga may ñu sa ngërëm ñi mu gungaale ñu dugg ak moom bàmmeel ba malaaka yi suñu ñëwee duñu laaj suñu laaj day jub kuy dee bëgg nga deewaaleeg ngëm yal nañ yàlla musal ci ngëm gu rekki ko yal nañ yàlla musal ci ngëm gu rekki ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax man kaana képp koo xamante sa kàddu gu mujj ci àdduna mooy laa ilaha illallah sa passeport la ci àjjana te ku ngëmam rekki ko du mën ilaha illallah di ko jàng nag fexe leen ba boole ko ci seen pain quotidien di ko jàng suba ak ngoon laa la illallah ak di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bëree bëree bëri mu dégg nga de mu ni ko wa in manaxta fa zu fadlin wa zu karam wa in manaxta fa anta alxaakimu alxaani wallahi wax na dëgg de yàlla lii ñi lay ñaan boo ñu ko mayee yow borom tedd nga borom ngëneel la boo ñu ko xañee rek yaay attekat bi nga xam ni doo juum mukk loo àtte dëgg la kon ñun ñoo war a seetaat suñu bopp gis nga dëggi dëggi ragal yàlla nag nee na cër la boo xam ni coobaree yàlla nga koy amee waaye du pexe du ngóor déedéet déedéet ragal yàlla hmm. cër la boo dëggi dëggi ragal yàlla cër la boo xamante ni yàlla rek moo la ko mën a may moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dënn bi mu ni at taqwa haahuna kon nag yàlla nañu yàlla may dëggu yàlla nañu yàlla may dégg ak topp sànq dégg naa euh, sëriñ Cheikh Ahmad mii di wax ni as-sidq ni maam Cheikh Seydi Hadji Malick moo fa huwa zinatul murid zinatul murid الحق يعلو ولا يعلى عليه نعم فمنكر الحق في الخسران والدين سيد بابكر الحق يعلو ولا يعلى عليه نعم فمنكر الحق في الخسران والدين خليفة قطب الوجود الذي أبدا لا يهتم فمنكر الحق في الخسران والدين الفارق الوجود الذي أبدى يتوى ربي وآدم بين الماء طالب شيخ لغته الحق يعلو ولا يعلى عليه نعم فمنكر الحق في الخسران والدين إن القصيدة هذه من مريد أبي الفيض الإلهي أبي بكر آخره ألفان إن القصيدة هذه من مريد أبي الفيض الإلهي أبي بكر أخي إن القصيدة هذه من مريد أبي الفيض الإلهي أبي بكر أخي إن القصيدة هذه من مريد سيدنا والآل والصحب سباق الميادين بارك الله فيكم su ko defee mbokk yi yal nañ yàlla may dégg ak topp yal na yàlla dolli leen jàmm fii fa tabaarakallaahu ñi ñëwoon ñi ñëwoon ak ñi niseroon ñëw ñépp ci jàmm yal nañu dellu ci jàmm ju ëpp ju ñu ñëwee woon bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa yàlla jubal leen ak waa réew mii ngeen nekk ba ku ci nekk la nga ngardaajoo yàlla may la lu kawe sa njort lépp lu ngeen soxla ci ñoom yàlla tàggatal leen leen ba ngeen jot ko ñiy jàng yàlla na yàlla may leen réussite ci njàng mi ak future entreprise yi ñi liggéey yàlla na yàlla barkeel seen liggéey ñi koy wut yàlla na yàlla yombale leen ko ñi bëgg kërit yàlla na yàlla yombale leen ko ñi bëgg sëy yàlla na yàlla yombale leen ko te ci njaboot bu barkeel njabootu lislaam fa tabaarakallaahu ah, xam naa ni fii lay yemale kàddu yi ndax mi ngi guddi te jombul